am mbégte nag ci tàllal micro l'international Sida Sarr encouragé tamit as moom lañ tuddee vraiment centre les anciens internationaux am nañu télé vraiment ñuy ñaan yàlla télé bi nekk amin amin amin boo ko ñaanee suñu borom def ko parce que am naa njot bu rafet ci yow ndax bu baax nga soxor rafet É o rek ci premier match bi gis nañ nga ñëw indi Sonacos ñu toog a ñëw premier DG DG vice champion l'année passée dara ko def man sant waaw dafa d' abord di féliciter équipe bu Sonacos bi comme ni ñu ko waxee équipe bu jógee deuxième division noonu daaw ñëw di yéeg yéeg première division ba sa premier match nga am.

loolu sax moo leen war a doon yéeg man bi mu damay teg ci sama loxo rek pour pousse rek mu dem am naa chance tey nag mu am répondant parce que match bi yombuloon amoon na y de la place ñu fekkoon tamit équipe jaraaf bu xarañ ñu tamit ñëw parce que tamit wax dëgg yàlla euh, trois semaines yaa fi suñu woon on a bien travaillé pour mettre en place dara li ñu def nag li ñu préparé woon tey am naa yaakaar ni am nañ ci répondant malgré efficacité bi moom maa ngi kon mooy mooy dugal bi dama wër naa nag mais dama doon wër benn asma mun aw ma ko waaw donc euh, parce que loo xam ne ci dernière tiers bi fa lay concentré pour dugal mais amoon nañ opportunité mais tout compte tenu dama leen di encouragé rek di leen félicité vraiment di di encouragé aussi jaraaf yi nga xam ne moom lañ jël benn position aw kàddu yi rafet na comme li ngay wax rek comme ni asma am boobu benn la woon boobu dootul am waaw mu koñ la tuuti <laughs> waaw boobu moom léegi dañuy ñëw ci équipe bu gis nañu ak marché bi déroulement marché bi gis nañ tamit ñu ngi dox ni occasion bi yëpp cette équipe moo ko moo ko am tey jii nii est-ce waaw xam nga bon suñu ah, amee occasion dugaloo ko forcément dina am ay regret mais tamit il faut ñu xam tamit équipe bi ñu dajaloon tamit yaa fasul ñun aussi on a monté des arguments surtout deuxième mi-temps bi nga xam ni ñom genre sauf qui la ñu bëggoon def ko cest dañu dire pour pour marqué ñu ñu ne wuta on a été intelligent et on a répondu pour mun a am possibilité de jouer par des attaques rapides vraiment wax yalla on a réussi parce que bal yépp bi ñu ko sur suñu premier tiers yàgg na c'est-à-dire dem nañ ba ci camp ya sax dugal bii nag comme li nga wax asma daal laay wax. lu gàttal waaw dernière question bi tey mën nga wax ban système de jeu lay Thomas Jaraaf bi parce que dama gis équipe bi positionnement ci terrain bi dafa baax par rapport ak équipe Jaraaf. waaw donc 4-4-2 daal maa ngi un 4-4-2 classique. moom laa préparé mais deuxième mi-temps bi ma sentiré nii am naa possibilité dama réduire sama milieu de terrain def trois attaques soo xoolee machine 4-3-3 laa ko terminé mais bon comme li nga wax rek. essayer pour mettre en place parce que bon pour mon dama système de jeu yi cinéma figé wul quoi nous nga commencé ci dara kër ñu ne ko te tey la nga def au début xamuñoon adversaire parce que premier jour là jaraaf ñëw am entraîneur bu bees am ay joueurs yu il fallait nga observer leen c'est ce qu'on a fait et on a réussi vraiment merci objectif de euh, euh, ci ci ci saison waaw xam nga équipe buy door yéen di ñëw ci ponkal ah. yi. Ah. waaw a yaakaar. waaw xam nga da ngay négocier. waaw da ngay négocier. <laughs> merci kontaan nañ nag maa ngeeg euh, nit ku baax kay mën naa wax ni l'international Sidath Sarr mooy papa yi Pape Matar Sarr ak euh, sa beneen doom bi j' ai fële. Samb Sarr waaw ah, Samb. Samb Sarr Samb Sarr waaw di ko di leen ñaanal rek. waaw suñu dem ci vers une coupe du monde tamit depuis bi ñu tamit euh, championnat waaw comme ni ñu yokk ñaan rek ñun ay papa lañ. waaw ñun tous les anciens. ñaan rek yàlla may leen wér gu yaram ak taxawaay di jaay loolu doomu nee nañ doomu ñëw kenn du ko ñaanal gan. waaw dañ koy ñaanal gudd fan. ak wér waaw ak wér voilà. jërëjëf Sira kontaan nañ